mbokk yi nuyu naa madame la ministre de la justice euh, maa ngi lay nuyu euh, mis sous la tutelle du pouvoir exécutif instrumentalisé par ce dernier le pouvoir judiciaire ne peut pas assurer ses missions dans l'impartialité et l'indépendance ku wax loolu du man ku wax loolu du Ousmane Sonko ku wax loolu Macky Sall moo ko wax en 2012 tey 2023 le sàll Sall gën a teg oomam ci bëligu justice ci bëligu état de droit ci bëligu démocratie ci bëligu république moo tax ñuy profito pour jaajëfal attekat yi nga xam ne ñu ngi atte te yàlla ak askanu Sénégal tax attekat ak procureur yi nga xam ne ñu ngi wax te président Macky Sall APR ak Benno Bokk Yaakaar taxul ñuy wax te yàlla tax te askanu Sénégal tax Ousmane Sonko jërëjëf lu tax jërëjëf parce que ñun askanu Sénégal li la président Macky Sall def di manipuler justice su Sénégal diggante 2021 ak tey daf ñu wan ñun askanu Sénégal lan moo tax ay liggéeykat yu mel ni liggéeykatu transplast depuis trente ans trente deux ans mënuñu am dëgg ci justice lan moo tax ay liggéeykat yu mel ni liggéeykatu wex bi mënuñu am dëgg ci justice dag ñu won naka la président Macky Sall ak ñi mu àndal di manipuler justice nga nekk béykat ñu sàcc sa suuf nga dem justice du la jox dëgg nga nekk liggéeykat ñu lay noot doo am dëgg et yaa am dëgg jërëjëf Ousmane Sonko. ci li nga fësal ci manipulation ak instrumentalisation nous exigeons la libération de tous les détenus politiques qui sont au nombre de plus de 1000 détenus politiques Sonko cinquième président de la République du Sénégal incha allah dina doxal ci anam boo xam ne dina dëppoog un peuple un but une foi fi may daanelee mooy du ñu am jot fayantoog ñi nga xam ne ñoo ñuy noot depuis 2012 amuñu jot boobu ndaxte li ñu manquele ci 267 postes de santé ci 50 centres de santé ci plus de 11 hôpitaux manquele 4000 sages-femmes loolu rek dinañu doy liggéey on va réconcilier le Sénégal avec les Sénégalais on va réconcilier le Sénégal avec la justice on va réconcilier les Sénégalais avec l'état de droit avec la démocratie avec la justice jàmm jàmm beneen turu jàmm mooy yoon doxal yoon Sonko cinquième président Bassirou Diomaye Faye 3 millions de parrains